nag ñi nga xam ne ñooy armée bu Sénégal ñoo ko xam xamle ma ngi ci réew mi quotidien yéen a kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu élection législative yi bu ñu ko dàqee bu mu leen bett jamono ji dàq ko ma ngi xeeñ journal bii de la sa ñu fekk fa Babacar Fall bu Gradec daat nay wax ni fii ci réewum Sénégal bu fi kenn dàq élection législative yi bëgg a taafantaloo ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum technique wala wàllum juridique loole bu ko fi kenn taafantaloo yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu wàllu Sénégal niki démb ginnaaw digg bëccëg gi doon nañu amal janoo tas ko do xabaar yi waaye nag daan nañu yekk musiba na ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ndax waa wàllu Sénégal ñoom na nañu dañoo gañe fi nga xam ne mooy département bu Pikine waa Benno Bokk Yaakaar bëgg koo sàcc bëgg koo hold up bëgg koo fuqarti waaye nag loolee mënuñu koo nangu tey mënuñu koo nangu lekk yéen a kaay gi di source xëy duñu xibaar naan ñu wàllu Sénégal jamono ñoom ñoo soxla ndimbal waa wàllu Sénégal ñoo ngi ñaan ku leen wàllu yéen a kaay gi du nee na Ousmane Sonko tey ji fas naa dem ca diwaanu Pikine ngir nag wàllu waa wàllu Sénégal yéen a kaay gi nee na waa wàllu ñoom nag nee nañu woon ñoo bëgg wàllu askanu Sénégal Sénégal waaye jamono jii tembe ñoom ñooy ñaan wàllu yéen a kaay gi de Le Quotidien nag ñi nga xam ne ñooy waa wàllu Sénégal nee ñu nag élection législative yi bu ñu ko bëggee gagné il faut opposition bi ñoom ñëpp joxonte loxo yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien xëy xibaar naan ñu Boubacar Biaye député bu benn bokk yaakaar bi nga xam ne moom lañ doon tudd ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique niki a kaay gi bu yàgg-yàgg dugaloon nañ leen boobee ki nga xam ne nag mooy Boubacar Biaye moo si desoon fanaan na guddeem gu njëkk ci kasu bu Rebeuss yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy wax ci lu jëm ci wàllum njàng meek njàngale meek jafe-jafe yi nga xam ne njàng mi amee na ko ndax syndicat bii di g ak CEMS e ak CUSEMS e jamono ji mer nañ ba maara détaal yi état bu Sénégal mën nañoo wax ne état bi dafa tëlee ngir nag régler problème bii nga xam ne moo am ci wàllum njàng meek njàngale mi journal bi di Vox na nag nga xam ne ñoo jàngalekat yi daan nañu lu toll si ñetti fan yoo xam ne dañu koy gerew yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien na njàng mi yëngu na jamono ji ci demul ci nga dikkul mbay laara ñi nga xam ne ñooy élèves yi maanaam ñoo ngi ci mbedd élèves yi sax jamono ji dañuy génn ñi nga xam ne ñoo nekk ci école privée yi yéen a kaay gi de la tribune nee na nag ab tànk dañu koy taalal wala ñuy bank ko état bu Sénégal ñaari mbir moo fi am maanaam mu réglé nag jafe-jafe yi nga xam ne jàngalekat yi am ko lu may loola rek élèves yi ñoom ñooy wàcc si mbedd mi waaye nag li am ba de sàll mooy état bu Sénégal état bee tooñ état bee tooñ ñi nga xam ne yi ndax nag état bi moo fi signé woon ni nee na woon ne dina ko jëfee te ba léegi nii amul ne kaay gi di réew mi quotidien nee na fulla mooy jaay Dakar Assimi Koïta mi nga xam ne moo jiite Mali moom nag daan nay wax ambassadeur bu France nag ko ñetti fan laa la may nga defar say bagage lem say kaaka génn réew mi di Mali yéen kaay gi di enquête nee na bu ñu waxantee dëgg ñi nga xam na ñooy waa Mali jamono ji Mali dafa jéngoo bras de fer bu saf sàpp la Mali di def ak ñi nga xam ne ñooy waa France yéen kaay gi di sat wax ci Coupe d'Afrique bi nga xam moom la ñu nekk journal bi nag li mu gis nee na Sadio Mané taxawaay bu mat sëkk la Sadio Mané amee ci Coupe d'Afrique bi yéen gi nee na équipe bu Sénégal